برأني الباخي من الأمراض وكب من أنكر باعتراضه بقي jamono yi Baol Média FM mi ngi lëkkaloog Baol Média FM 2 ñuy ànd ak yéen ci waxtaan yu am solo yii su ngeen ñu bëggee wéy di déglu nag ànd leen ak ñun ci suñu site bii di www.baolmedia.net wala www.mbackebaol.com wala sax ngeen ànd ak ñun ci tuneen rajo jërë ngeen jëf ci déglu bi. موجشة بان لحسن خير lu nga xam ne mooy génn ci buntu suuf bi su fekkee da koy taq ci fenn ci yaram bi wala fenn ci yére yum sol waaw ah, lu boobaa moom jéggal nañ ko ko moom mu doon dugg ci li ñu la waxoon léegi ne la sépp sobe soo xam ne dama génn ci nit ki benn yoon rek donte benn yoon la moo xam ci bëccëg mbaa ci guddi hmm, daañu ko ko jéggal bu fekkee da ko taq ci yaramam mbaa mu taq ko ci ay siram ndax bis bu ne nga fóot moom day daal di metti wa taw bi murdihatin ak malaanum aji nàmpal tajju tahyidu kook dana farlu maanaam kuy nàmpal te farlu lool nga xam ne dara day rëcc rek dara day rëcc ca sawam gone ga mbaa ca xaytee laal ko rek waaye ku faralu la daañu ko jéggal loolee su farluwul nag deesu ko ko jéggal wanuti ba soppeef na la xaañeel ko saw buñ malaan li salaati ñeel julli maanaam sopp nañ mu sàkk yére yoo xam ne saa yu dee julli rek sol ko bu jullee ba noppi tegaat fa wa di dirhamin ak lu yées ab dërëm min damin ci deret mutlaxan ak lu deret derete wa xayhin ak detti kese wa sadidin ak detti wànjar maanaam deret wala detti wala detti kese mbaa detti wànjar lala ca taq moo xam dalaa taq ci saw yaram mbaa fa ngay jullee mbaa sa yéere su fekkee matul ab dërëm am na sax ñu wax ne bu matee ab dërëm tam ci la lu ko ëpp daal lañ dul jéggale waaye loolu nag lu yées la wax maanaam say boo jàpp kon li wax lu yées ab dërëm dërëm boobu nag dërëm bu bax la lañ ci jublu maanaam bax la day am ab kuppandal boo xam ne du sax kawar ba noppi nag daal di ron daal di kuppandal ba mel ne dërëm la tax ci deret nag mbaa dëtti kese mbaa dëtti wànjar bu fekkee noonu rek la toll mbaa bu nga wax li mu wax mu yées loola jëgal nañ la ko nga xam ne doomu bax la mooy bax la day am ci tànku kanam ba ak digg boo xamni du sax kawar ko ci dum ko tundu nag moo tax ni ko tudde dara way du dërëm ko defee nak la tax ci deret ku yaatoo moom képp yem ci baamatu ko baal nañ ko wa xayhin ak dëtti kesse wa sadidu ak dëtti wàññal kesse kese dëtti moy mooy dëtti jaxasoo ko ko tam la ci tax ko ëppul mo ñu wax ci dërëm bu baax la daa ko jégal buñ ko jégalee ci mo noonu ko jégalee ci dëtt waaw wa bawli farasin ak sawul fas li xaasin ñel aji xare ji di harbi xarbin ci suufus xare neena ko xamni ci day xare ji nekk ca suuf sañuy xare ni rew kéefar hmm, lu ko tak ci sawul fas mu war sawul fas mu war di ci xare lu ci tak ni dal ko am na lañu wax ni ñent baat yépp ngay jël benn war ci manki manam saw ma la wax hmm, ay bëggu ci ne neefare neefare duñ ko jëgël farasin fas la wax bu fekkoon ne bax la la waram mbaam mbaam di ko xeefe duñ ko jéggal saw ma li xaasin la wax ñeen aji xare ji fekkoon ne kooku xare ko ko jéggal maanaam tënk yooyu bu joxe moom du ci ab takk lee mu tudd am saw bu doon neexare la lee mu ne fas bu doon mu bax la it noonu la wala mbaam fas yooyu mu tudd ci ab sart lee mu ne kuy xare jàppal ne bu doon kuy tukki kese wala muy sàmm itam noonu la léemu ne bi ardi harbin ci suufus xare jàppal ne bu bi ardil muslimina ci suufus julit ñi yu yépp du tee ñu jéggale ko xanaa li ci am di mooy ñeenti takk yi mu wax bu ci daje moom ka mu dal farlu am nga ñàkk farlu ñoo ci yemoo daañu ko ko jéggal te nag bu fekkee ñeenti tënk yi mu wax dajewu ci kon dañ cay sartu ak farlu hmm. daal li mel ne lañ sartoon ca koy nàmpal bu farloo waaye bu dul loolu mën ngaa bàyyi tënk yi mu ko tënk noonu wa athari zubaabin ak jeexiti weñ min hadiratin tukkee ci doxantu maanaam lu mel ne weñ bu daloon ci ay xayta wala am sow wala bëtiku dalaat ci sa yaram mbaa mu dalaat ci sa mbubb ci sa yére jëggal nañ la ko mooy nga xam ne weñ wa daal muur ci biir saw ma mbaa ci biir xayta yi door fitti nag dal la waaye su boobaa kon moom dina ko jéggal dañ lay jéggal daal mooy bu fekkee dafa dal rek ci kaw sobe si xam ne xëy na gémmiñam moo ciy laal wala ay tànkam dong boobu bu tongee ci sa kaw gannaaw ba daañu la jéggal loola waaye bu ci xasee noor ci biir moom fitti dal la faaw dana aajoo nga raxas ko wa mawdihi hijaamatin ak bërëbu nàmpatalu musiha ba fompeef na ko xam nga bu fekkee dafa nàmpatalu day xotti yaram wi deret génn ci léegi nag foofee ñu xotti bu ko raxasee fa saasa da day boppam kon daañu ko may rek mu fomp ko bàyyi te bañ koo raxas waaw daañu ko jéggal nag bañ ngaa raxas la ci des ca ba ko fompee des na ko ko jéggal nag fa isa bari andiwum wér na nag xasala mu raxas bërëb boobee su demee bu wér nag mu daal di raxas foofee nga xam ne moom la nàmpataloon te fompoon ko fompoon ko rek bàyyi léegi na ko raxas ne moom wér na wa illaa bu fekkee raxasu ko nag daal dem julli aadamu baamu fi waqti ci waxtu wa kooku nga xam ne dañ ko ne woon fi nga nàmptaloo jéggal nañ la ko jarul raxas da koy fomp rek waaye nag su wéree nga raxas ko moom nag bu ko daal dem dul rek mu ne kooku kon day baamu ci waxtu wa ndax ci waxtu wa dong lay baamu moo xam daa fàtte moo xam na ko tey moom la wax naa wa uwi la taawi liif na mu dawoona bindisiyaani ci fatte ba o bil itlaq ak ci boyal ga boyal moy makhna mutlaqan daa wax ni ñen ñi saraamu do woon nañu ndëru raxasut lañ ko raxas lo won muy fam won la ta muy julli dañu seet ba xam da ko fatte wala fàttewu ko bu fekkee da ko fatte ci waxtu dong lay baamu waaye bu fekkee ne fàttewu ko mom day baamu abadan mo xam waxtu jall na mo xam waxtu jàllut li mahmudul itlaq nak moy mom dañu yemale ki fatte ak ki tay nga xamni ci waxtu dong lay baamu waye su waxtu jalle mom di ci baamoti wakatini matarin ak lu melni ki banub taw wa ini ikhtalatat tabir mom jaxasona al hadiratu ay doxantu wala nga ni ay xayta bil musibi ci aji jot ja ina bu fekke dafa taw bu sewet ndoxum taw mi wala ban bi nga xamne ci ngay deug jaxaso ay xeyta kon la lay tak ci ndox ma wala ca ban boobee jaxaso ay xeyta daañu la ko jéggal ci sartu nag jëmmi sobe sa bañu def jëm ju ne léng ban ba ak itam mu bañ a ëpp te bu fekkee sobe sa ba tey des ko jéggale daañu ko wax léegi moo tax mu ne laa in xalabat waxunu ndeem not na maanaam na sobe sa ëpp doole moo gën a bari wa zahiruha zahirus mu dawoon nag alxafu mooy jéggale ga teew nag lu mu dawoon a wane moom mooy doonte sobe sa ëpp doole lam jaxasoo itam muy ban wala ndox itam tutee jéggal nañ la ko waaye jàppaleen jëkkan wax rek mu gën a wóor mooy bu fekkee sobe see ëpp doole jéggaleetuñ ko wala in asaaba du caagin ndeem jote na xëy dukaa jëmmi sobe si maanaam ba tey bu fekkee ne jëmmi sobi sa ci boppam mo la takk waaye jaxasoo wut ban ba dara da day kon di su ko jéggale faaw dang koy dindi néna ñu nak bëre bu nekk ab santaré moom tam ban ba fay nekk ak ndox ma fay nekk atti bobu lay amé ci dañu la jéggal la nga xamni mo la cey taq lu may da gëna bari lam jaxasool moom sobe sa da dem bu gëna bari la ca dess ba moom ci bopp bu bëru taq la su boba faaw dess na ko dindi ñu mi jang nga seetlu ne dama wax léegi ne bu tawee bu siwit waaye taw bu siwit du ci ab sart moom boobu demee ni ñu wax rek ni muy atte bi wa day limraatin wa day limraatin ak mbiccum jigéen mbiccum ba di mun guddal li sëtt ngir namm suturaal maanaam jigéen bu guddalee ay yéreem bu baax a baax ca tar lu jubluwu ca damu ci bari yére du ko def rek ngir bëgg a suturlu bu baax ngir yàlla waaw mën ngaa ci nag warjulin akub tànk bullat bu tooyaleef na ko ya murraani yooyu danañu romb bi najasin ci sobe yabasin suy aji te am max naan yabasin kon yett xuraani danañu laabe bi maa ci la nga xam ne ba doxoo nekk na ci gannaawam yaari yi ñoo bokk àtte jigéen joo xam ne am yéere yow nga sol ko guddal bu baax ñu dañ la wax muy sutura si ak koo xam ne ab tànkam daa nopp ne mu dem dëgg ci sobe waaw te loolu nekk jëmmi sobe nek am saw baa dara nee na ñooñu ñaar seen àtte mooy yett xuraani danañu laabe bi maa ca la nga xam ba adaxoo nekk na ci gannaawam bu dee mbiccum jigéen joojee buubu ci kaw sobe su wow su jàllaatee ci suuf su ko nga te laab rek ñu jàpp na kon dara nekkatu ja ci lu nuru sobe bi ca moomee daal nay laab ba tey borom tànk bu tooy bi dëgg nag sobe moom itam su jàllaatee dëgg ci suuf su wow soo xam ne dafa laab jàpp ne kon tànk boobu léegi ko na lu laab waxu fin ak aw bot wa naalin ak aw dàll min raw si dawaaba ci neefaray ay daaba wa bawliha ak seenum sow in dulika ndem fompeef na leen ñoom ñaar dafa wax ne koo xam daa amee ay bot yu mu sol wala ay dàll mu dëgg nag ci neefare daaba yi nga xam ne seen neefare ak seenum saw sobe la moo xam neefare la dëgg nag moo xam saw ma la moo xam saw ma la dëgg yooyu nag mooy lu mel ne bax bax la wala mbaam wala fas lu mu ci mën dëgg rek ci aw botam wala aw dàllam bu ko xasee fomp ak lu laab niki dindee ko suuf wala doj bu ko xasee fomp rek ba seet set ñu jéggal ko la cay des du aajo mu di ko raxas ak ndox laa xëy di ci waxuñu lu tudd xam tudd neefara te wax yooyu daaba wala saw te muy sawum ay daaba mais nag bu fekkoon ne seeneen sobe la dëgg ci aw botam wala ci dàllam nag ni ki deret wala xaytay doomi aadama wala wala wéy xaj waaw su boobaa kon moom fomp ko fomp ko kese du doy day aajo faaw ñu raxas ko ba mu set fa yaxla'uhu dana summi badwa almasiyu aji masaja la ma mbir mom déet ndox ho di and ak mom ba yetta yem moomu tamit tim neena ko xam da soloon ay bot yo xamne ne da cay masa, mooy amna na sañ-sañu masaaja waaye nag daa amee sobe ci nek so xamne ne ko suñu koo julliwaale nga xamne war na ko summi raxas ko te xam nga bu ko sumee rek masaagam ko nyapu, dal di xam nga leg sol na body waaye body def na sobi so xamne ken jéggalu ko bu sumi body moom ñap jàpp mhm. te amul ndox moom amul ndox mom jàppaate it tim rek la nara def a mu na la yoy jamon de kon day sumi body ya ko defé ñap momé mu waron dal di yàqu tu mu dal di tim waaye kenn du ko bàyyi mu julliwaale sobe si ngir sàmmonteeg njàpp ni mu lore waxtaara tànn na moom allah xam yi ilxaaqa rijlil faqiiri yéegal tànkub aj ñàkk ci àtte boobu nga wax maanaam allah xam yi daa wax ne koo xam ne moom dafa ñàkk ba mënta am ay bot mbaa ay dàll yu mu sol kon moo ñu waris na koo jégal bu fekkee ne léegi ab tànkam da caa dëgg neefaray daaba wala sawum ay daaba su ko fompee rek ñu war koo jéggal la ca des ndax moom ñàkk ay dàll mokk tee sol loolu mel na ne xaw naa mu lu jaadu wa fi xayri fii nekk na ci yéegal tànku kudul aji ñàkk ji xawlaa ni ñaari wax lil mutaaxirina ñeel way mujj yi maanaam bu fekkee ne kooku moom woomal na mën naa am ay dàll wala ay bot te ko wutul rek moom léegi nag kooku ndax bu fekkee ne ak tànkam dëgg na ci neefaru daaba wala sawu daaba ndax moom it daañu ko war a jéggal rek bu ko masa bu ko fompee rek mu daal doy te aajo war a xas daal ko bëgg a yemale ñàkk ji nga xam ne mënta ame daal ne loolu am nañ ci ñaari wax ñee nangu nañu leen yemale ñee nanguwuñ leen a yemale wa waaq yin aji dal xalaa maar yin ci aji romb dafa wax aji romb rek waaye nee nañu kii dox ak ki tëdd ak ki toog ñoo yemoo bu fekkee ni rek am na lu jekki-jekki dal ko ci ndox te xamul nag ba xam sobe la wala mu sobe nga xam day sikki sàkk rek kooku jégal nañ ko mu tàyyee laaj dox rek jàll bañ caa laaj dara rek moom dal di bàyyi waaye nag wa in ndew mu laaj na suddixa kon dëgg la leef al muslimu jullit ba dañ ko ne woon jëru ngay laaj mën ngaa dem rek mu ne kon nag bu fekkee ka mu laaj da di ab jullit kon lu ko jullit wax rek say bo mu japp lola bu nekku lu laaf la bu japp ni lu laaf la bu nekku sobe la mu daal di fexe tàggoog moom wa kasayfin ak niki jesi saqil judi juñ xacc daañu jéggale ku ko raxas li ifsaadihi ngir bañ ak yaqam min damin ci deret mubah judi juñu daganal lu ne dafa dugalaale lu ne paga wala setu ci mboolem ñu nga xam boko raxé ak ndox da ko dal di gaaw yaq yooyu nak neena bu fekke deret mo ci tak mu bokk ta deret genn to muy deret jo xamne ne ju dagan la bu ne deret ju dagan dana yóbbaale bu fekkee day deret ju war niki bu dee jihaar deret ci tak ko ca jesi ja mba ja yoy yu wax manam to bu deret jo xamne ci sunna la sababoo niki rendi am tobaski wala sax leneen lu dagan rek niki rendi ganar ba leneen ngir di ko yëpp rek bu ci dara ci taqee ci jeesi jë mbaa ca paaka bala yooyu bu ko fompee rek bu doy ñu ko jëggal du dara mu ñu ko raxas mhm. waaye nag bu fekkoon ne la ko dara ci taqee day lu aay ni ki rey nit rey gu araam wala jam ak jàmbur su boobaa moom kenn du ko jéggal loolu taq ci jeesi jë wala ca paaka ba wa asari dummalin ak jeexiti taab mun yoon ko joj bëseefu ko ñen ak taabam bu fekkee dafa jekki-jekki rek la ci nekkoon génn ba ëpp ab dërëm waaye moom bësu ko ekkatiwu ko su boobaa la ci génn daañu ko ko jéggal su fekkee ne moom nag moo ko bësal bopp wala moo ko kon lay génn ci bitti moom da koy fomp ndegam ëpp na ab dërëm way ëpp na lañ jéggale su ko defee su pompee li ci kaw nag bañ ko raxas bala mu jaa gaañu su demee ba wér nag waaw kay mu door koo raxas loolu nag mooy àtteb génn taab waaye bu fekkoon ne day ay ayu taab yu bari moom kon doonte moo ko bés wala moo ko àkkati du tey ñu jéggal ko ko ndax loolu war la su fekkoon dafa ràmm itam noonu ba tey des ko koy jéggal rek ndax xam nga ràmm day aaju wokkutu te yaram day bari ay picc lool wonu di ba soppeef na raxas bépp bu buñ ko jéggal inta faaxa ndeem ñaaw na ba jéggi dayoo nee nag bépp sabu buñ la wax ne la baal nañ la ko su demee su demee dem ba ñaaw lool ba nga rus koo toogaale ci say moroom rus ko génn ñu koy gis kon daa ñu sopp nga dindi ko kadamil baraax yi si nit ki dereti fel ya dereti fel moom lu mu bari bari jéggale nañu ko waaye moom itam nag bu demee ba xam ne ñaaw naa ñaaw ba rus nga koo ci say moroom ak nit ñi di ko gis su waa ñu sopp nga dindi ko illaa fii salaatin dara ci biiru julli bu la nee sobe ci day sop nañ nga dindi ko waaye yow nga armal ba tàmbalee julli kon kat bu ne day dag julli gi ndax sop gañ mo waxon ci dindi sobe so suñu ma jéggal dédé da ngay julli rek ba agal doo saña dag julli gi dem di dindi mom sobe so sé nga xam jéggal jéggalul nañ la ko wa yatuhuru dana la mahallun najisi birabub sobe sa bila niyatin ci lul yéene bi xaslihi ci raxasam in xurifa ndem xamef nako nee na sobe bu la taqee moo xam ci sa yére la moo xam ci sa yaram la moo xam ci fi ngay jullee la bu fekkee xam nga fa mu tàmbalee xam nga fa mu yem boo ko raxasee rek dal nay baax boo ko raxasee ba mu dañ rek baax na boo ko raxasee ba mu set rek dal nay laab doonte yéene woo ko maanaam doonte sam xel fàtte woon na ne foofa sobe dem na ca waaye gannaaw bi raxas nga ko rek dinañ ko war a raxase rek kon su boobaa laab na wala bu keneen ñëwoon sax bu keneen ñëwoon fóotal la ko benn yoon ca mooy ca nam waree rek te xamutoon sax ne sobe suñu war a dindee ngi ci koy du ko baax loolu nag mooy bi nga xamee sobe sa fa mu tàmbalee ak fa mu yem wa illaa fa mu yem fa bi jami xiri ki kon nekk na ci mboolem la sikki sàkk fii ci moom ndéem xamut fa mu tàmbalee fa mu yem fa bi jami xiri mashkooki kon nekk na ci mboolem la sikki sàkk fii ci moom waaw ah, bu la soobee taqee ak fu mën di doon waaye xamoo fu mu xamoo fu mu yem kon loolu lépp bu dee ay yére lépp ngay fóot benn yoon bu dee saw yaram itam faaw da ngay sangu benn yoon kakku may xi niki yaari la fi mbubbam nee bu fekkoon ne si yaari la fi mbubb da ci am woo xam ne wóor na la ne sobe dem na ca te xamoo wan laf la ci su boobaa kon ngay fóot yaari la fi mbubb yëpp rek waaw yaari yëpp rek ngay fóot benn Mhm. bi xilaafi thawbayhi ci ak ñaari balanam fa yataharra kon mom day natale neena boo amon yaari mbubb yoo xam ne wóor na la ne menn mi laabut am na sobe xam nga ko ma jort ko bu baax a baax mi ci dess na mom wóor na la ne moom laab na waaye la xamé xàmmeeti man la ci kon na ngay nattale ngay seet tegtal boo mën a xàmmee ne bii nga japp ni mom moy nga japp ni bo moy dal di koy julé ba ci dess na nga tek ko fay mom koy bu taxoorin ci ab laaba mun fasilin bi aju tàggalikoo kadalika ni ki jëmmam bon demagul ci fot bi bu taxoorin day delu ca wayat taxoru dana laabe je nga waxon ci gannaaw fofu lay aju ji da wax ne fu am sobi boko ko fot la lay xamal ne fofa legi labna na nga bayyi moy bu fekke ndox ma nga xamne mo cey cay boko de xol dara dara lu ñu doon tek sobe sa taxoon ba nga digu fot amatu ca waaw li sax bu fekkee ndox ma am na lu mel ne yére ba yóbbu yóbbu yére ba di ca feeñ bala yooyu di ca wàññi dara waaye nag saa yoo xam ne daal dara lu mu doon teg soobee sa nga doon fóot mënu su ko caa gisati rek mënu su ko caa xàmmee ca ndox may rogalaat rek waaw su boobaa kon xamal ne jàpp nañ ne fa nga doon raxas sobi nekkatu fa léegi laab na su jaan wàcc na wala yël sa mu du war nag xasruhu ak bësam maxa zawali taamihi ànd ak dañu cafkaam maanaam sobi si ngay fóot moom bu xasee am cafka faaw dana aajowoo cafka la dañ li fekk cafka la dañu dañu jàpp ne setut waaye nag bu cafka li dañee ba nga xam ne liy rogalaat gisoo ci dara lu mu doon teg sobe bu la neexee du aajoo nga di ko nal ngir ndox mu génn bu la neexee sol noonu ci tooyaay bi ñu rogalaat bu la neexee weer noonu ba mu wow rek la ci gënal duñ sart nga bës ko laa law nin waxunu aw melo wariihin aku xet xasura yooyu jafe nañ ñoom ñaar maanaam li nga doon fóot muy sobe bu fekkee daa amee couleur bu naqaree dindi wala xet gu naqaree dindi su boobaa daañu la ko jéggal ndegam moom cafkale dañ na rek jënd couleur ba ca des ba xet ga muy xeeñ ba tey jéggal nañ la ko wal xusaalatu póotiit ma al mutaxayyiratu mooy aji soppiku najisatun sobe la aw nee na bu fekkee ne nag ndox mi yoon fóoti sobe si boo ko dee xool xàmmee ci sobe si doon fóot waaw su boobaa kon tuutit moom sobe la des koy tuur te ndox ma nga xam te ndab la xam ne moo ko defoon sax boo soxlaa ndab la da ngay raxas ndab lu ñëkk mu des nag bu fekkee ne ab tur rek la maanaam yaramam dafa tire wala ay mbubbam tilim rek noonu waaye tilim kese la kooku moom bu ko fóotee doonte ndox ma xàmmee nañ ci tilim tilim ba muy tur ba it ndox ma laab na waaw ak saw yaram itam bu fekkee defoo defub tur teewul tur bi laab na waaye sook ko mënee dindi nag moo gën mhm. dut bu nee nag ndox mi nga xam ne ab da ko soppi wala gom wala li nga doon da ko soppi bi ne laab na ba tey tekkiwul ne mën nga koo jëfandikoo waat ci wàllu jaamu yàlla day mel kon laaba ko soppi rek nga xam ne nga ko jëfandikoo ci aada iki naan wala sangu sangun saabu wala yooyu waaye waxuñu nga jëfandikoo ko ci wàllu jaamu yàlla wala zaala doonte dañoon na xaynul najaasati jëmmi sobe sa bi xëyril mutlaqi ci ndox mu dul mutlaq lam yett najjas kon du sobewu mu laaqi mahalliha aji tasee bérébam ba waaw nee na bu fekkee sobet laa taqoon nga dindee ko lu bokkut ak mutlaq dañu wax ne kon ba tey àtte baa nga fa ni ki boo ko dindee ci saabu rek bàyyi nagam jëmm ji dañ ne nee na noonu mu tooyee boo ko tafoon ci sa bopp ak ci sa yaram mbaa nga tax ko ci beneen mbubb itam du tax ñu wax ne sa yaram woowee mbaa mbubb sobe sa nako manam ko maanaam atte boobee amon ci jëm jojé amon sobe te dindé wo ko mutlax mo ñëw na ci moom déedéet ndegam mom jëm sobe sa dañ na atte ba do nga fa dess atte bi moom mënta toox ko ñu yéré bo foté lu bokk teg ndox mutlax boo ko tagoon ci sayaram ci toyay ba mbaa ci beneen yére itam du tax ñu wax ni sayaram wowe woowee faaw nga awaliwaat ci ndox ba yéré bo mu laalantel faaw nga wat ci ndox déedéet wa in shakka ndem sikki fi isabatiha ci jotok sobe sa li faw bi ñal am malan wajaba kon war nadhuhu ak wisam bo gisé lo ne na la ne sobe la li ngay sikki sàkk kay moy ndax laal na la wala laalu la su boba kon day war nga wis sa yéere jek as benn rek wis ca dana ko wax léegi wa in taraka ndem bàyyi na wis ga nag ahaada kon mu baamu as-salatu julika bo di sikki sàkk sobe ci laal na wala laalu la ñu digal la nga wiss sa yere nga bañ ko wiss dal di julli kon faaw nga baamu julli ga kal khas bi ni ki raxas ga manam sa yere bu la wóoree ne sobe dem na ci ba jort nga ko bu baax a baax ko wara a kon nga ni kal khas bi ni ki fóot ga raxas lo ci wax baax na ba tey ge ba mbaa go ge bu fekke di ko su boobaa bo ci julli boo ko julliwaalee noonu faaw nga baamu julli ga waxoo mo wiss go nga waxon nag rachun mooy ak wiss bi leen di ci loxo nabb ko be lay firi bilaa niyet ngir jëlu yéene fu mu la fi digalee nadduxu xam ne kon boo asee ndox benn yoon rek ne ko ci xëpp benn yoon ci biir ba nga sikki sàkk donte dajul fépp fépp fa nga sikki sàkk it du ko tee baax laa in shakk waxuñu ma ndeem sikki sàkk na fii najaasatil musibi ci sobewub la ko laal mooy la ko jot nee na bu fekkee nag daa am jëmm ji la laal joo xam ne xamoo ndax sobe la mbaa du sobe nekk nga dem ci wanaw rek génn gis say yére am fu tooy te xamoo ci saw ci saw mi la bokk wala ndox nga yoron diko siwo su boba da ngay japp ne rek ndox nga ndox nga yoron la dal ci genné san xel aw ci ma wala muy sikki sàkk ci yar yépp lolu lu mëna mëna am la yar yépp moy da ngay sikki sàkk li ndax sobe la am du sobe ak ndax laal na la wala laalu la su boba ngay bayyi non rek waye dara waru la wa wahalil jasadu ndax yaram wa ka taw bi mi ngi mel malan ma aw yajibu wala kay dana war ghasluhu ak rahasam mom yaram wa xilaafun yari wax yu siiw manam bo gisee jëmmi sobe ngay sikki sak ba xam ndax lal na ci saw yaram wala laalu la ndax kon dang koy wiss rek bayyi nga daan def ci balat ma am day war nga raxas ko ndax yaram mom raxastu ci wañu dara fofu am yari wax yu siiw wax ba gëna a nak moy yaram bi day war nga raxas ko boy sikki saka sobe laal nako ko wala ko ndax moom raxas ko du ci wañu dara ko waron kasset yi njëkk mu sét dañu am jumte bu tuti ji dañ ne won aw dana war ko raxasug malan ma fekk dee sa war wax ne aw ji bu wala kay day war غسله رخصك يا ربوة أي رجوع حنا فوق دال رخص كيكدو دخل من سوي رمم رخص كي يومنا دخل رخص كي يق أو يرم تبرون أي يرين من بر الفوق من نقويق وإذا استبه اليمن تنا الطهور لهم مطلق بمتنجس كأجي صبه أو نجس ولا جن صبه صلى كن مجل بحدد النجس كلمة دبي أم صبه وسيادة إناي أبدال بيان دبي maanaam ay ndab dafay nekk yoo xam ne yenn yi moom xam nga ne ndoxum mutlax lañ ndox ma ci nekk manis na caa jaamu yàlla yenn yi nag moom xam nga ne soppiku na am saw dem na ca dem na ca dañoo dem ba mënu leen a xàmme nag ndax bu fekkee ne léegi ndox mi ci boppam dafa xong coy amaana bu dee ne ndab loo xam ne def na am saw doolu mën a xàmme moom ñaar saw ma xeeñut waaw kon daal bu ay ndab nekkee fii bu ne def ndox am na ci ndab yoo xam ne wóor na ne moom ndox mu baax a ci nekk am na ci yoo xam ne wóor na ndox ma ci nekk moom mu baax waaye mënoo leen a xam mu nekkoon kon bu waxtu wa yaatoo dañuy seet limu dab ya nga xam ne moom mooy ci baaxut nga xam ne ndox ma ci nekk baaxut na limu dab yooyu toll ndab lu nga wàññi ay dab yu toll noonu jàpp ci njàpp yu toll noonu julli ci julli yu toll noonu ci misaal bu fekkoon ne juróomi ndaba fi nekk xam nga ne yett dab yi moom ndox mi ci nekk baaxut mënuta jaamu yàlla waaye yaari dab yi moom ndox mi ci nekk mën naa jaamu yàlla mënoo xàmmee juróomi dab yi nag yan yaar moo ci baax ak yan yett moo ci baaxut su waxtu wi yaatoo dañ lay wax ne la limub dab yi baaxut ñaata la nga ne ñett ñu ne léegi jàppale ci yetti ndab ndox mu nekk ndab lu nekk nga jàpp ca te boo jàppee julli fa boo noppee teg ci meneen ndab jàpp ca julliwaat fa ci beneen ndab jàpp ci julliwaat fa kon xam nga yett dab yi mat nga dolliwaat ci beneen ndab nag muy ñeent nga jëlaat beneen ndab ci ndab ci des moom itam jàpp ci kenn ni ndab yi sobe yi toll rek noonu la jàppee yi julli yi toll te ndab lu nekk dangay nga ciy jàpp julli ca saasa door demaat ci ma ca des ndax dañuy bañ ndab li nga jàppee bu fekkee moo amoon sobe ah nga xam ne léegi moom nga bu fekkee ne moom amul sobe nga lay jox sobe waaye loolu mu wax mooy bu fekkee waxtu dafa yaatu waaye bu fekkee waxtu yaatuut da ngay bàyyi lépp rek te dem tiim wannu di soppeef na xaslu inaa i maa in raxas ndabal ndox wayu raaqu te def na ko tuur la ca topp dëgg-dëgg nag mooy boo nee sabaxan juróom yaari yoon la ca topp dëgg-dëgg mooy bi wu looxi kalbin ci xabuk ab xaj mutlaxan ak lu xaj xaje maanaam bu fekkee ne ndab la ndoxo ca nekk ab xaj dikk xab ca xab ca mooy mu dugal ca aw làmmiñam yëngal ko kon su boobaa sopp nañu ndab la ñu ko juróom-yaari yoon moo xam nag xaj ba bu ñu digle la ku ko jàpp ni ki booy rëbboo wala booy wartoo wala sax muy xaj beneen rekk boo xam ne kenn sañu su ko jàpp muy xajub kese rek bu ko defee nag loolu lañ di ko digal rek waaye xamuñu sabab sax moo tax mu dolli ci laa taxaamin waxuñu aw ñam waxaw din ak mbalka ba noppi ñu def ko taxabudan ngir jaamu yàlla taxabut dañ koy jëfandikoo ci foo xam ni daal lañ nu digal xamuñu lu ko waral ñu digal nu ko ba taxaw naa taxabudan ay lam tadhar xikmatuhu li tahaaratil kalbi maanaam xat ndegam mi ngi dund xam nga ne laab na ay ñandax itam ay loram laab na waaye teewul ñu digal nu raxasum ndab loolu nga xam ne xaj ba da caa xat laa taamin du geenu ndabal ñam wa din ak mbalka su fekkoon ne ndab la aw ñama ca nekk برأني الباخي من الأمراض وكب من أنكر باعتراضي بقي jamono yi Baol Média FM mi ngi lëkkaloog Baol Média FM 2 ñuy ànd ak yéen ci waxtaan yu am solo yii su ngeen ñu bëggee wéy di déglu nag ànd leen ak ñun ci suñu site bii di 3w point baolmedia point net wala 3w point mbàkke baol point com wala sax ngeen ànd ak ñun ci tuneen rajo jërë ngeen jëf ci déglu bi musu ayatan la tura li xayri mujisatan baana li usni xayri